min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala ibaadihi alladina safa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangub bépp mbindeef sallallahu alayhi wa sant ab liggéeykatam muy sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul xaadalahu lahu maxtaara noo ngi nuyu mbokk yépp fi ñu leen baaxoo di nuyoo talaata bu ne ci weeru koor wi di am mbégte it di teewaat ak yéen beneen jataay bu bees ci day jataay yi xam-xam yi nga xam ne moom lañ baaxoo di ko fi nos mu mel ne aadala ci kon wala tàmm nañu ko gis talaata bu ne ginnaaw tàkkusaan fii ci daarul karim ñu fiy dalal ay boroomi xam-xam ak i woroomi xalaat ngir ñu mën a jàngat ak jàng ab tomb ci li war jullit ñi li leen war léeg-léeg mu nekk ci diine léeg-léeg mu nekk ci àdduna ñu gisoon ne jaar naa fi jaaraat fi tey jii muy ñetteel bi incha allah di nuyu bu baax a baax a baax sunu wajur bi nekk ci bi nekk ci dëkk bi ak i mbokkam ak i mbokkam yépp muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke di xalifa suñu Modou Fati Khari di ko ñaanal bu baax yàlla yàggal taxawaayam te yokk wér gi te yokk kàttan gi te lépp lu mu yéene yàlla mottali ko ci barkeb Serigne Touba. niki noonu it noonu lañuy ñuy nuyoo bu baax sëriñ Moustapha mu sëñ Masamba di ko ñaanal it li ñu ñaanal sëriñ bi muy ak wér ak gudd fan ak yéene ju mat di jaar bépp mbokk it ndax fàttaliku woon ne démb dañoo amul naqar ndax sallallahu alayhi wa sallam day wax ne masalul muminina fi tawaadudihim wa taraxumihim ka masalil jasadil waaxidi ida staka minha adwun tadaaca lahu saaira aljasadi bi shahri wal xuma kon dafa waxoon ne almuminu aqul muslim aqul almuminu almuslimu aqul muslimi ak almuminu lil mumini kal bunyaani yasuddu baaduhu baadan mooy li mu waxoon ne jullit ñi dafa jullit dafa war nekk ci moroom mbokkum jullitam mel ne aw mool wu ñuy tabax saa su tabax bi su ci benn mool dañee rek ab tabax manqué na kon niki noonu noonu la ñuy jaalee bu baax sunu way jur sunu najaay sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñu koy wax ci sëñ Jiili Mbay doonoon doomi sëriñ Mam Moor mu sëñ Masamba doonoon ku baaxit doon koo xam ne ñépp xamoon nañu ak bëgg mbokkam ak bëgg sëriñ woyof muy koo xam ne jaxasoo nañ loolu macha allah ak ñépp nag macha allah di ko ñaanal it yàlla yokki leeram ca barzaqul muhammad yi te yàlla it defal ko àjjana ju gaaw ci barkeb Sëriñ Tuubaa te yàlla def it yàlla defal ko mu rëcc lu mu doon yàgg ci àdduna ndax ab jaam noonu rek la am bokk na ci àq jullit bu fi jógee nga ñaanal ko bu woppee nga seeti ko bu la nuyoo nga fay ko ak yeneen ak yeneen kon loolu suñu warugar la woon njëkk ñu tàmbali wala bu ñu ko defutoon rek dañuy jàpp ne it wàcc nañ suñu ànd kon gannaaw loolu it ñoo ngi sàkku ñëpp kenn ku ne nga ñaanal ko it lépp loo mën nga ñaanal ko ko du ñu sàkku kenn ñaan waaye lépp loo mën nga ñaanal ko ko rek yàlla jox ko yool ba ndax day sàkku day soxla ak ñaan comme ñun nit ñi soxla ak ñaan fii ci àdduna di ñaan it ñi fi bàyyi ak lim fi bàyyi yàlla teg ci loxo ci barkeb Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu ñu am mbégte tey di dalal benn woroom xam-xam boo xam ne xam nañu ko baax xam nañu ko tuuti bokk waaye xamale gàtt gi nga gàtt rek mooy ab murit la taalibeb sëriñ Tuuba la ab jàngalekat la ak boroom xam-xam la muy sëriñ Maodo Dieng xaadimul xadim mu war ñoo waxtaanal tey loo xam ne it diine la àdduna la bu ñu waxee diine la àdduna la muy li nit ñi jàpp muy politique politique comme niñ ko xamee wala siyaasa comme ni ko arab yi xame politique moom yi nag li mu ñu war a wax li mu ñu ci war a waxtaanal mooy am na ñaari gisin yu mu ciy am muy gisin bi lislaam am ci politique ak gisin bi nga xam ne moom la ñooñ sowwu ñi am ci politique bu ñu waxee ñooñ sowwu mooy nasaraan si ak ñi nga xam ne ñoom seen pas-pas xam naa ngir bañ a guddal dana am ay tomb yoo xam ne faaw mu laal ko kon dana waxtaane politique gisin bi ko lislaam gisee ba taxoon jamono sallallahu alayhi mu nekkoon lislaam nekkoon diine akum réew ak gisin bi ko ñooñ sowwu ña gisee muy tubaab yi nasaraan si ci kaw loolu dana waxtaanee gisi ni nasaraan seen ni ni nose seenu àdduna ba tax mu jag dana waxtaanee it ay xeeti nosin yu bees yoo xam ne feeñ na ginnaaw bi lislaam wàccee ba jeex ba ba ba yonent bi saa sam jóge fi ba nit àdduna yi nit not not nit ñi léegi am na nosin yu bees yoo xam ne dañ ko nos nosin boobu bokk na ci li ñuy wax ishtiraaki li ñuy wax socialisme socialisme mooy day mel ne day jege peuple bi lool ak li ñuy wax suyoo yi mooy communisme ak li ñuy wax libéral yi nga xam ne ñëpp daanaka moom lañu xam mooy libéral mooy comme suñu maam Abdoulaye Wade ak nosin bi nga xam ne moom la lislaam nos nag kon dañuy gàttal rek mooy am na nosin boo xam ne lislaam moom la nos am na nosin boo xam ne it ñi ñëw ginnaaw bi fi Muhammad sallallahu alayhi jógee muy nit yi àdduna nit yi sow sow yi am na beneen nosin bu bees bu ñu ko nos incha allah xam naa kon ngir bañ a guddal dañ koy daal di bàyyee kàddu gi euh, bu noppee nag mu dooga gam-gamle ñaar yi gam-gamle lislaam ak nos yi yële incha allah danañ ci jariñu bu baax a baax a baax am naa ci yaqin dinañ ci jàng jariñu bu baax ndax moom mii jàmbaar la jàng na fii jàngee na Thiès ba am fa ay diplôme yi mu war a am yépp gannaaw ba ci Azhar bu Thiès la doon jànge gannaaw ba ca la dem Égypte jànge ji fa lam fa doon jàng nag mooy ci wàllu làkk ak làng yi nga xam ne kon ci loolu ñoo nahwa ak yeneen yu mel yu yu dooni mbokkam moom la ko doon jàngi doon nag koo xam ne wàllu histoire arabe yi da koo macha allah ba moom bi mu ñibbisee nekk ci toolub xam di jàng jàngale mi ngi joxe xam-xam fee ca Azhar bu mag bi nga xam ne moo nekk ci yoonu Mbàkke wi di fa jàngale ci classe yi gën a kawe muy koo xam ne kon bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la yoonu murid di sagoo ndax Sëriñ Tuubaa loolu la doon ñaan rek yàlla may ko ay ndaw yoo xam ne dañuy xeeñtu bëgg-bëggam te bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa mooy bëgg-bëggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg-bëggu yonent bi sallallahu alayhi bëgg-bëggu yàlla kon dañ koy ñaanal yàlla it yàlla teg ko loxo te it yokk xam-xam bu baax a baax te it di ñaan it lépp lu ñu lu mu fi lu mu fi andi it mu doon loo xam ne lu ñu mën a jariñoo lay doon incha allah kon sëñ Maodo Dieng bismillah tafadal masula samiul alim min sharri shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi allazina stafa wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi yëkkati nuyoo bu sell di ko indil mbokki gox bi nga xam ni ci lañu tàbbisi di ko sof rekk ci bopp sëñ Seexuna kàddoom yu rafet yu matale yi ak nuyoom bi xëy na yëkkati bu ko gën a jot danañu jafe waaye fi mu ko jaarale ci kilifa yi ba ci académie bi nga xam ne ñoo taxawee lu am solo lii nga xam ni jataay la ci jataay yi nga xam ne ata ibnu abi rabax waxoon na ni benn ci ñoom dafay far fukk ci jataayu baatil yi yàlla nañ ko sunu borom xéewale te fulal ñu ko su ko defee it ñoo ngi koy nuyu moom suñ naa di ko sant bu baax ndax jataay bii buñ ko mënee am muy tawféex ci xam-xam sunu jëmm tàbbi fi ci moom la jaare ñoo ngi koy sant te di ko nuyu di nuyu it mboolem ñi fi fekk tey kilifa ñépp rekk mu mel ni ni mu waxee li ñu fas yéene waxtaane mooy politik ci diggante gisuñu lislaam ak gisuñu tëralin yi nga xam ne mi ngi bàyyikoo ci sowu jant maanaam ci réewu tubaab yi loolu nag tomb yi ñu ci fas yéene jaare moom tudd na ko dañuy ñaan suñu borom may ñu ci tawféex ba ñu mën a indi ci loolu lu doy sëkk euh, politique nag laaj na ñu xamle ko ndax kenn ci boroom xam-xam yi day wax ni li nu xaddida al mafahim qabla an tanshaila al xarb bu ñuy dugg ci waxtaan laaj na ñuy kale lépp lu jëm ci wàllu concept maanaam lépp luy aw déggin ñu wax lan lañ ca jublu ngir ñu bañ a réeroo ci biir wax ji ba tax na politik ci lislaam moom la ñuy wax siyaasa siyaasa cosaanu baat bi mi ngi bàyyi ko ci saasa yasuusu mooy politik na dana politik rot na ci xadiis sang bi sallallahu alayhi wa di wax naan kaanat banu israil tasuusuhumul anbiyaau banu israil yenent ya fa daan ñëwkat dañ leen daa politique dañ leen daa politique al-Maqrizi di boroom xam-xam moom it xamle ko ci ni mooy loi bi nga xam ni moom la ñuy teg ngir muy sàmm lépp loo xam ni dafa jëm ci mbaax ak i teggin ak it lépp loo xam ni dafa jëm ci intérêt général ak nu ñuy nosee mbiri nit ñi ci seen bopp mu ni nag am na ñaar am na bu tooñkat am na ci boo xam ne bu maandu la fuqahaa yi it ñoom ci biñ koy tënk dañ koo tënk ci lépp lu yéwénal mbiru umma bi te moo di xeet wi lépp loo xam ni dana nose mbooloo mi nga xam ni mbooloom jullit la te it dana leen mën a tëralal ay tëralin yoo xam ni dañ koy sukkandikoo ci gisinu lislaam bu dee Occident muy sowu ñoom gisin wiñ ci am daanaka sorewul ak gisinu lislaam mi gisin yu bari la ndax boroom xam-xam yu bari ci ay jamono yu wuute kenn ku ci nekk jéem ngaa jóg ngir xamle ko waaye seen xam leen yooyu dafa sorewul moo ci tënk baatu lislaam it rot na ñépp xam ni pas-pas la ci xol waaye ab loi la boo xam ni buy àtte la waaye ay jikko la waaye contrat social la waaye it benn charte la boo xam ni mooy tax nit ñi am dundu gu am solo dund gu yiw dund gu teey waaye mooy buum gi jokkale mboolem jullit ñi fu ñu mën a nekk ak làkk yu ñuy làkk lu mën a wuute seeni melo nu mu war a nu mu mën a mel liñ jublu ci baatu anzima mooy tëralin yi nga xam ni wala idéologie yi nga xam ni ci la parti politique yi tey ak réew yi ci la ñuy sukkandiku ba mën a doxal seeni politique liñ jublu ci baatu sow moom it mooy réewu Europe yi ak réewu Amérique yi ak yeneen réew yi nga xamante ni ñoom lañu ñu lëkkalool yépp ndax bu njëkk baat bi amoon na fu mu taxawoon ci wàllu géographie rek daanaka ñi ngi ci jublu woon yenn réew yoo xam ne réewu tubaab la ci Europe kese waaye ñun bu ñu koy wax nag réew yépp lañ ci jublu buñ jubloo bu ñu jógee ci loolu baatu bu baatub muasira tamit rot na ñi ngi ci jublu li weesu ginnaaw qurunu nahda mooy les années de la renaissance ci Europe ginnaaw bi ñu commencé teg ay état anzima yi commencé feeñ ba sunu jonni tey loolu la ñu jublu ci baat yooyu ku nekk xam na ni nag Europe dafa am lu bare bari ci histoire loo xam ni mëne su koo tënk ndax dafa yàgg ci ay siècle yoo xam ni jàngu bi moo fa nekk yilif fa di doxale ay doxalin yoo xam ni xëy na yu jaarul yoon la loolu bokk na ci li jur xalaat yi nga xamante ni ci la politique yi sukkandiku tey loolu nag ci lañu demee ba mu yàgg ci fi nga xam ne moom mooy Russie benn xalaat bu ñuy wax communisme feeñ fa communisme boobu muy assurant ya mi ngi bàyyikoo ci xalaat yi philosophe bu siiw boobu nga xam ne mooy Karl Marx communisme ñoom gëmuñu lu jëm ci lépp loo xam ne dafa am ci dafa am relation ak ruuw mbaa mu am relation ak diine mbaa mu am relation ak sunu borom lépp dañ koo tënk ci ni matière la dañuy wax ni laa ilaha illa al madda amul benn buur bu dul matière matière diine moom it yitteelu leen danañ ci ñëw ci biir ñu gis ni it mbooleem yëngatu yi mas a am ci taarix ak rupture yi nga xam ni ay rupture sociale la ak ubbi yi nga xam ni diine yi daan nañ ko def xare yeeg lépp dañoo jàpp ni ngir wutum koom la woon ak matière waaye ngir yaatal ak moomeel rekk lañ ci jublu woon bi ci topp mooy li nga xam ne mooy patriotisme te mooy bëgg sam réew dañ koy rey ci nit ñi parce ni ñu doxalee seen économie day mel ni état nit ki da koy noonu fu mu bi ci topp bi moom mooy jëfandikoo wàllu kàttan ak force te loolu Lénine bi nga xam ne moom moo baptisé waat moom moo ngénte waat communisme am na lettre bu mu bindoon wax ni rey genn wàllu àdduna bi yépp kat sax amul njariñ li am njariñ rek mooy genn wàllu gi ci des nañ doon ay communiste rek loolu mooy li am njariñ bi mu demee noonu libéralisme daal di juddu ñoom gis ni euh, xalaat yi ak liberté yi kat niñ ko tënkee metti na ci xalaat yi ki nga xam ne mooy John Locke di nit ku am dayo ci Europe bokk ci ñi def contrat social yi ci livre bi mbind risalataani anil xukuma Montesquieu tamit ci ruuxul xawaanin ak ku mel ni Voltaire ak it euh, Emmanuel Kant Jean-Jacques Rousseau ci euh, Scott euh, ci ñi nga xam ni ñoo taxaw foofu rawatina ci wàllu économie nag Adam Smith feeñ ak it euh, ci Amérique Benjamin Franklin ñoom ñëpp kenn ku ci nekk say xalaat bokk na ci li feeñal libéralisme gi ñoom ñu gis ni dañoo war a fexe ba nit ki am liberté ci wàllu xalaat dañoo war a fexe ba gouvernement ñu yeew ko nag mu xam fi muy yem xam tamit lan mooy pas-pas ñu yeew ko moom mu am fi muy yem waaye li nga xam ni moom mooy yoon ñu fexe ba mu am te daal di maasale ñépp ñu fexe ba nit ñi di mën a weccante ay xalaat ci bépp liberté waaye nag marché bi ñu koy jëfandikoo ci liberté ku mu neex nga moom waaye nit ki saña moom waaye li nga xam ne mooy bien commun état moom day dugal loxoom rek waaye du ko gérer ba mu mat sëkk dootu ko gérer ba mu mat sëkk te it na am transparence ci ni muy doxale mooy doxin wu yaraax ba ku nekk man koo xam loolu nag fekk si li nga xam ne mooy alxaqul ilaahi ndax bu njëkk ci kanisa bi maanaam église bi dafa amoon li ñu tuddee xaqul ilaahi da nga daan bay ba noppi ñun la da ngay génne àqu yàlla ji aqu yàlla ji waa kanisa bi ñoom ñoo koy moomaat loolu daanaka di woon dictature boo xam ni lu doyoon waar la ñu ne nag dañuy fexe ba dindi ko ci biir loolu tamit biñ ko taxawalee liberté yi nga gis ni kon bari na ci lool ñoom seen lépp liberté moom la ñuy gën di xeex liberté ci moomeel liberté ci liggéey liberté ci jaay liberté ci nit ki lu ko neex gëm hmm? dañ leen di tooñ sax daan ni libéral yi kenn xamul seen liberté yi fu ñu moom ndax ñoom ñooy tere njaayum gànnaay sañcaa def lu nekk nga rey nit ñu sañcaa tëdd duñ nelaw ndax loola waaye ba noppi di daganal li nga xam ni mooy avortement te ñaar yépp ci même temps bi di rey nit loolu gëm ay liberté yu bari moom moo leen ko yóbbee bi ñu demee ba noonu ci la capitalisme feeñ capitalisme mooy ar-rasmaliya waaye moom dafa nekk benn courant boo xam ne dafa aju rek ci wàllu économie nga xam ni wàllu politique taxul mu jëm ci lool daa di wax ni na état nag wiccax loxoom moom waxuma état di dugal loxoom waaye na wiccax loxoom bu mu dara am ci yëf yi na bàyyi nit ñi ci seen moomeelu bopp ñu lijjanti ko nu mu leen soobee biñ demee ba ci kanam li nga xam ni moom mooy ishraakiya daal di feeñ te mooy socialisme socialisme moom dafay taxaw ci forcé ci nag moomeelu nit ki nit ki daal di fexe ba taxawaal ci moomeelu boppam nga xam ni état dootul dugal loxoom ci ak moomeelam waaye dañuy fexe it ba libre concurrence mën a am ci diggante nit ñi waaye nit ku nekk mën a doxale sa économie nu mu la neexe waaye bokk na ci défaut yi nga xamante ni indiwaale na ko mooy dafa daa di gën a soññee ci lu jëm ci wàllu classe mooy nit ñi waaso yi ñi ñu doon wax sànq ci wàllu communisme waaso yi moom da koo gën a dëgëral la euh, waaye socialisme séddaliku ba tey ci ñaari pàcc am na socialisme boo xam ne mi ngi juddoo ci euh, xalaati Karl Marx moom mooy al ishtirakiya al marxiya nga xam ni marxisme euh, moom lay incarné waaye socialisme ci fi nafsil waxt bi ci topp mooy al ishtirakiya al fabia mi ngi sosoo ci xalaatu Fabien bi nga xam ne ab romain la woon waaw waaye ñoom ñëpp seen socialisme boo ko boolee ñi ngi doon xeex ci lu jëm ci wàllu yi ma waxoon léegi waaye booleeg nag sunu boroom moom bokkul ci dara moom ilhaad toujours moom day dugg dañuy weddi sunu borom waaye mbooleem diine yi tamit dañ koo jàppe loo xam ni amul njariñ waaye nekk ñoo xam ni dañoo gëm li nga xam ni mooy fippu nga xam ni ay révolution yu bare bare bari bari moom la ñuy taal pour mën a daal di euh, dund ci loolu kon euh, ci loolu dañu bari lool ci ay courant de pensée courant de pensé yooyu ñoom ñoo dem ba jur nag état yi tey ak parti politique yi tey état yooyu bi ñu commencé taxaw dafa am leneen lu am beneen menace bu am mooy nihayatul idéologiat mooy la fin des idéologies nga xam ni danielle Biel moom moo ko déclaré te loolu mooy bi ñu demee ba euh, guerre mondiale deuxième guerre mondiale jàll nga xam ni euh, dem nañ ba communisme daanu Daniel Bill daal di déclarer la fin des idéologies wax ni idéologie jeex na Europe idéologie ya fa am kenn tënkootu ci booba moom ab libéral la rek mu bëgg a notal libéralisme tasaare ko ci kaw yeneen idéologie ginnaaw bu ñu faatoo te booba idéologie yeneen yooyu muy wax ni dee nañ ñi ngi dekki ci yeneen réew fu mel ni Chine ak feneen ginnaaw bi ci la ko ki nga xam ne mooy Francis euh, Fukuyama daal di feelu moom it déclaré nihayatu taarix la fin de l'histoire bi mu déclaré la fin de l'histoire moom it daanaka sorewul ci lim ko doon waxee ak ci Daniel Bill lim doon wax ndax booba dafa gis ni socialisme ak li nga xam ne moom mooy communisme ñoom daal libéralisme lañ ko war a weccee ci démocratie beeg ci valeur bi mu jox li nga xam ni mooy liberté ak it li mu jox nit ki ci wàllu ay droit ak ay àq kon daal moom lañ gën a war a favoriser bi ñu demee ba loolu yépp di ci dox ci logique boobu ci la nouvelle ordre mondial daal di feeñ nga xam ni moom dafa joggati nag idéologie yi fi nekkoon yépp nga xam ni bi xarbul xalij tàmbale guerre de golfe ci la ko George Bush al abbu moom it daal di koy déclaré nga xam ni mbooleem idéologie yooyu yëpp dafa am idéologie bu gën a mag nag boo xam ni moo ñëw ci seen wet mooy Amérique aw gisinam léegi mooy gisin wi ci àdduna bi yëpp aw doxalinam mooy doxalinu àdduna bi yépp loolu fekk si kuréel yi nga xam ni dañoo sosu woon dem ba ci raaxaloo ci loolu daal di nekk ay idéologie lu mel ni alxaraka an nisewiya nga xam ne moom mooy euh, féminisme ñooñu nga xam dañoo gëm dooleel jigéen léegi nag ñoom ñu impliqué wu ci doxinu état yi di leen dicter ay loi di leen dicter ñoom it seen wàllu politique ak munazamaat xuquuqiya yi kuréel yi nga xam ne dañuy lijjanti wàllu droit de l'homme ñoom it jeexital ci doxinu état jeexital ci bu baax a baax umamul mutahida muy Nations Unies ci mboolem kuréelam yi moom it commencé indi ay doxin yoo xamante ni dafay dicter maanaam politique yi seeni politique mën nañ cee jël rek lu mel ni mi nga xam ni dootul maandu léegi ci koomu dëkk yi lu mel ni OMS nga xam ni moom mooy organisation mondial pour la santé nga xam ni dootul maandu ci doxinu dëkk yi ci wàllu am paj noonu lañ koy doxale ba yu baree bari fekk si idéologie yooyu daal ciy jeexintal ñoom politique yi tamit seen bopp commencé di def li ñu tuddee jongle nga xam ni nit ki dafay nekk ab communiste ba pare waaye teewul mu bàyyi dara ci communisme dem daal di koy jël ci libéralisme wala mu nekk ab libéral ba pare daal di jëlaale li nga xam ne moom mooy socialisme ci wet ga boqaale ko nga xam ne dañoo mujj di jaxase di jongle ci biir eh, kii yi nga xam ne bu dee am na ñu gëm idéologie yooyu daanaka idéologie yi dafa commencé di ruus ba nga xam ni la nga xam ni mooy cosaan ga dëgg-dëgg nekkatul lu taxaw idéologie yooyu nag moom moo jur ni ma ko waxee woon sànq état yi nga xam ne moom moo taxaw ci àdduna bi ci gis-gisu politique ya ci histoire politique ba ci li nga xam ne moom mooy institution yi nga xam ne moom mooy composé réew ma ndax réew mu nekk ak say institution réew mu nekk ak say tëralin moom moo jur tamit li nga xam ne mooy constitution di ndey sartu réew mi moom mooy jur tamit code yi nga xam ni danañ ci cosaanoo yëpp code maritime code de la famille code yu bare bari yi nga xam ni ñoom dañuy judduwaat ci code bu mag bi walla ci institution bi bu mag bi moom moo indi tamit li nga xam ni mooy alxukumatul markaziya mooy gouvernement bi nga xam ni moom mooy gérer réew mi tàmbalee ca pale ba ak ñi nga xam ni ñoo koy jàppale muy ministère yi ministère yépp waaye nag moom mooy jur li nga xam ni moom mooy décentralisation bi ci gouvernement yi nga xam ni foo dem ci gox-goxaat yi fekk fa luy jëmmal ministère yooyu fekk fa luy jëmmal présidence bi tamit muy gouvernance ba préfet ba communes yi yépp rek lenn lu ci nekk ba ci communes rurales yi loolu jur tamit mbooleem agence yi nga xamante ni ak ay direction yi nga xam ne dafay waat ak ministères yi ndax dafa am ay agence ak ay direction yoo xam ne rang wu ministère la ñuy yor lu mel ni ARMP tey boo ko jëloon ci sunum réew nga xam ni régulation marché publique moom la nekkee waaye rang wu ministère lay am lu mel ni ARTP euh, ak euh, lu mel ni ay nag lu mel ni ay IGE boo ko jëlee ci tayaraan mu dine lu mel ni ay ASECNA yooyu nga xam ni li ministère yi di liggéey ñoom moom lañuy ñuy liggéey moom mooy jur tamit yépp ci tëralinu nguur ci wàllu économie ak ci wàllu social yépp ci wàllu yeneen institution yi nga xamante ni lépp tamit da ci tënku ba ci li nga xam ni moom lay kuréel yi maanaam parti yi coalition yi mouvement yi bu fekkente ni sañ nañ koo def yan kéet ngay lijjanti ñaata la ñuy toll loolu yëpp am na réew yoo xam dañuy tënk seen nombre de parti nombre de parti sàngam mu sañ koo weesu diggante ki nga xam ni moom mooy citoyen bi ak politique tamit fan la war a yem lan mooy ay àqam lan mooy ay droit am lan mooy ay devoir am yooyu yëpp moom moo koy tënk li nga xam ni mooy opinion générale bi aussi ci idéologie yi ci lañ sukkandiku ba tënk ko nga xam ni liberté d'expression liberté nangam liberté yu bari yooyu yëpp ak seen relation ci biir ba ci des tamit mooy li nga xam ni moom mooy politique extérieure bi nga xam ni sànq léegi maa ngi tudd code maritime ndax code maritime dëgg la intéressé na ñi nekk ci biir réew mi waaye ñi mu gën a intéressé lu ci gën a bari ay loi la yoo xamante ni réew yi nga xam ni ñoom lañ ko séqal ñoom lay gën a laal ñoom lay gën a concerné loolu yëpp ay politique la yoo xamante ni dafa aju ci biti te it ci kii yooyu lañuy sukkandiku ba tënk ko bi ci topp tamit moom mooy euh, li concerné maanaam li nga xam ni mooy ay loi internationaux la nga xam ni réew yi ñoo ko séq seen biir loolu nag état yi nga xamante ni ñoom ñoo koy doxal léeg-léeg nga fekk ci état boo xam dafa bindoo ni buur moom mooy doxal yëf ya loolu lañuy ñuy wax alxukuma wala ad dawla al ki fay doxal kenn lay doon buur lay doon waaye nag ci biir loolu dafay wuute mën naa nekk buur ba pare am parlement lu mel ni Maroc gis nañ ko mu nekk buur am si régime royal ba noppi am parlement mën naa nekk régime royal boo xam ni roi bi dafay gën a néew doole sax far nag lu mel ni tey Angleterre nga xam daanaka buñ la waxul ni am nañ buur doo xam ne am nañ buur lu mel ni Espagne yooyu yëpp ay régime royal la yoo xam ni dañuy dox ci biir am na li ñuy wax tamit aristocratie aristocratie dafay nekk euh, réew moo xam ni ñi gën a ñenn ñi rek ñoom ñooy àtte maanaam nga xam ne ñi fay àtte dañuy nekk ab minorité dañuy nekk ab minorité ci réew ma lu mel ni Bahreïn gee nga xam ni euh, euh, sunnit yi ñoom minorité bu ndaw la te ñoom ñooy àtte euh, aglabiya ba fa nekk majorité ba nga xam ni ay ay ay ay ay ay chian lañ am na lu ñuy wax it démocratie démocratie mooy lu mel ni sunu réew yi nga xam ni république lay doon ñu koy doxalee ci démocratie ci li ñu wax nit ñi ëpp ñoom la ñuy laaj seen xalaat ci ni ñuy doxale ak ni ñuy àtte loolu nag réew yu yaatoo yaatu la ndax li ñuy wax régime parlementaire ak li nga xam ne moom mooy régime présidentiel ni ñu koy doxale ci réew yi dafa wuute lool ndax boo xoolee résime parlementaire bu Turquie ak régime parlementaire ba ngay fekk Amérique dafay wuute lu wuute wuute la noonu la amee régime am wala système politique comme ni ko accident yi amee nga xam ni moom mbir la moo xam ni comme ni ma ko waxee woon lijjante nit ki àdduna ak alaaxira moom moo ko tax a jóg moom lislaam ba tax na ay caslaayu idéologie bu njëkk mi ngi koy bàyyikoo ci alxuraan alxuraan mooy fi lislaam di njëkk a sukkandiku ay li nga xam ne moom mooy caslaayu tëral nañu ay doxinam yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum waaye nag fa in tanaadatum fi cheyin fa rudduhu ila in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi al axir wa axsanu tawilan la ca topp mooy xadisu yenent bi xadisu yenent bi yenent bi yàlla moo woon wa ma aataakumu rasulu fa xuzuuhu lu mu leen indil rek na ngeen ko jël ba ca topp mooy loo xam ni boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci boroom xam-xam yi luñ dëppoo loola day daal di nekk ab àtte ci listaam day daal di nekk aw tëralin ak doxin ba ca topp mooy xiyaas nattale buñ demee ba gisuñu ijmaa gisuñu àtte ci alxuraan gisuñ ko ci sunna dañuy daal di nattale nag xiyaas yooyu moom mooy ceslaayu li nga xam ni moom mooy idéologie politique bu lislaam foofu lay bàyyi ko ay ay ay xalaatam ci politik lislaam am na ay principe ci wàllu politik principe yi bokk na ci li nga xam ni mooy maandu waaye bokk na ci diisoo bokk na ci topp ay ndigal bàyyi ay tere bàyyi ay tere bu ko defee ci tëralinam définir nañ li nga xam ne moom mooy gouvernement moom it ni mu war a mel li ko war a composé xalifa bi majlis suura bi ñi koy jàppale ak it ñi nga xam ne ay gouverneur lañ ci dëkk bi ak ñi yor wàllu jaysh bi ñi yor baytumaal bi ak yooyu yëpp mbooleem institution yooyu yëpp tënku na ko moom it tënkit fi nga xam ni mooy li ma waxoon léegi fi muy balloo li nga xam ne mooy ab atteem waaye tënk yeneen réew yi nga xam ne dañoo cosaanoo ci moom seeni gouvernement na mi tëdde mbooleem àq yi lislaam da ko tëral ci biir politikam am nit ki alxuraan daf koo may mu mën a moom boo demee ci xadis dañ koy may mu mën a tasarruf mën a am soxna mën a def lu bari waaye ci digganteem ak ñeneen tamit mu tënk ba ñeneen sañu ñoo jalgati ay àqam nga xam ni lépp luy droit l'islam da ko jox nit ki ak liberté aussi lépp daf ko jox nit ki waaye bokk na ci àq yooyu àqi dëkk nit ki sañ a xool fu ko neex rek nga xam ni bu ca dëppoo wala mu jënd ko moo xam dañ ko ko may loolu yépp état sañu ko nangu waaye da ko saña moom waaye àqi moom dara aqi jaay aqi jàng waaye aqi yamale ñépp loolu xëy na waxtu way tax duñ ko mën a détaillé waaye bu ci nekk am na caslaay ci alxuraan ak xadis naka noonu ci li nga xam ne moom mooy pouvoir yi tamit l'islam da ko tëral nga xam ni pouvoir bi nga xamante ni moom mooy pouvoir judiciaire te mooy lu jëm ci wàllu àtte moom da ko jox àttekat yi ñu man ko xam ko lool di ko sañ a def am na beneen pouvoir boo xam ne moom mooy pouvoir législatif moom da koo bàyyeek ñi nga xam ni ñoom ñooy mujtahiduun yi ak ahlul fatwa ñi ittihaad ak ñi fatwa am na beneen pouvoir bu ñuy wax pouvoir judiciaire wala pouvoir exécutif te booba da ko bàyyeek nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, xalifa bi ak ñi nga xam ne ñoo jiite armée yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jël dara ebi l'islam teg li nga xam ne moom mooy xalifa bu réewee amee président moom xalifa la am xalifa tënk na it sart yi muy taxe doone xalifa li ci njëkk moom mooy ak maandu nit ki dafay maandu maandu gu mat sëkk ba ca topp mooy ay sansam dafay wér dafay wér ci dégg wér ci gis wér ci aw làmmiñam waaye ay cëramit dafay wér lenn luy wàññiku du am ci li nga xam ne moom mooy ay cëram waaye dafa am gis-gis bu ñaw booy xam ni mooy tax mu mën a politique ndax politique du xel mu nekk moo ko mën a def dafay am gis-gis bu ñaw a ñaw a ñaw xel mu ñaw waaye dafay am ak njàmbaar njàmbaar goo xam ne mooy tax mu mën a sàmm réew mi mën a tax lu dul yoon mu mën ko faa jële mën a taxit muy tax di taxaw di xeex ak euh, nooni lislaam yi politik yi nga xam ne moom moo aju ci bitim réew it lislaam da ko tënk tënk na ko am ko am charte yum ca teg am ay balluwaay li jëm ci wàllu ger lislaam bàyyiwu ko da ko organiser xadis bu gudd waxtu wee tax duñ ci dugg waaye da ko organiser ak li jëm ci wàllu bu ñu nekkee ci jàmm dara xewul jamono yooyu lislaam dafa organiser dund gi ba nit ñi kenn ku ci nekk sa droit mu man koo jot waaye ku def lu muy dale sa kaw mu teg ay xudud xisaas am tanzir am yooyu yëpp mu dugal ko ci biir waaye li nga xam ni mooy ay minorité politique tamit lislaam da leen a bàyyi xel mooy ay nit ñoo xam ne bariwuñ lool ci benn gox nekk fa ñeneen ëpp leen fa lislaam da leen a bàyyi xel tegal leen ay kii waaye ci wàllu économie li ñuy wax politique économie l'islam da koo bàyyi xel nga xam ni dafa ut euh, premièrement li nga xam ni moom mooy ressources yooyu fu mu koy bàyyi koo moom l'islam fu muy bàyyi koo ay ressources am nga xam ni azaka ci la bokk taxes yi muy teg ci wàllu suuf si ci la bokk taxes yi muy teg nit ñi ci wàllu jizya ci la bokk li nga xam ni moom la nit ñi di fay ci impôt export ñu koy tudde ay onsuur ci la bokk boo dugalee dara mbaa nga génne dara ci réew mi beneen bi ci topp tamit mooy li ñuy jële ci wàllu koom yi nga xam ne ñu ngi koy jële ci xare yi waaye képp koo xam ne da ngaa faatu te amoo ku la donn ak yooyu yëpp ak li nga xam ne moom mooy xaraaj ñu koy teg ci euh, araadi ziraaye yi suuf mbay yi waaye yooyu yëpp bi mu ko jëlee nag du loo xam ne da koy téyewaat waaye daf koy jël di ko dépensé waat ci nga xam ne ñooy way ñàkk yi da koy déposé waat ci ñi nga xam ne ay miskin lañ liggéeykat yi ñi nga xam ni dañoo nekk ñoo xam ne dañuy xare ci yoonu yàlla ñi nga xam ni doomi yoon lañ ñoo ñëpp da koy dépensé waat ci ñoom parti politique yi tamit foofu gis-gis yi da cee bari am na boroom xam-xam yoo xam ne dañuy wax ni l'islam nanguwul ay parti politique am ñu baree bari tamit ñoo xam ne dañ koy layal te loolu ñaareel bi moom moo gën a not ndax lislaam nangu woon na yu baree baree baree bari yenentu bi fi nekk la nangu woon ahlu sufa am amoon na beneen jamaa boo xam ne dañ daan àndandoo di jàng alxuraan amoon na ay kuréel yu bari yoo xam ne nangu woon na ko ci jamonoom mu am loolu nag dafay tënk ni rek kon ku nangu concurrence la ku nangu it parti politique yi limu la nga xam ni kon lislaam lu am politique la moom it comme ni politique occidentaux yi existé noonu la politique ci l'islam tamit existé waaye ñu war a lënkale nag ñaari système yi système u l'islam ak système occidentaux yi ana nan lañ koy defee bi ci njëkk mooy ci seen balluwaay caslaay yi sart yi nga xamante ni dañ koy teg wala caslaay idéologie yi boo xoolee idéologie yi li ñu wuteeg lislaam lu bari la mooy ni nit moo ko defar te nit lu mu defar dafa baaxoo manqué ndax moom ci boppam dafa manqué te yàlla suñ borom moom li defar dara du ci manqué lislaam nag ci alxuraan la jóge bi ci topp mooy matalewul ñàkk matale ci wàllu ni ñuy doxale alal dañ ci def ay njuumte yu rëy rëy ni ñuy doxale politique bi dañ ci doxal ay njuumte yu rëy rëy te lislaam moom système bi dafa matale ndax dañ ko tënk mooñ ko ci ni nga xamante ni ki mooñ doomu aadama moom moo ko mooñ bi ci topp moom mooy anzima yooyu dafa nekk loo xam ne amul waaqin ya maanaam dëppoowul ak doomu aadama ndax doomu aadama dafay évoluer te ñoom dañ koy def ci benn jamono rek nga xam ne xalaati Karl Marx la woon Karl Marx jóge na fi bu yàgg mu nekk xalaatu leneen Staline ñëw fi ba léegi xalaat yooyu moom moo fi nekk di exister te ñooña seen jamono weesu na bu yàgg yàgg lislaam nag saalihun li kulli zaman wa kulli makan ba ca topp mooy ñoom tey rek la ñuy xalaat tey tey matière lu jëm ci matière nu ñu amee nga xam ni dara yàlla nekku ci te lislaam nag moom wabtaxi fi ma aataaka allahu daaral al axira wala tansa nasibaka min ad dunia lay wax ba ca topp mooy système yooyu kum ci nekk mën nga koo xaaj jël lii jël fii communisme jël fii libéralisme jël fii socialisme l'islam nag amul loolu benn système la boo xam ne da ngay jël lépp mbaa nga bàyyi lépp yahud yi bokk na ci li suñ borom doon xase mooy jël dara ci téere bi bàyyi li ci des afa tuuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi ba baadin la ca topp mooy ñoom tënkuwuñ ci ak fayug yowmal xiyaam système yooyu muy libéralisme socialisme communisme amul fayug yowmal xiyaam lislaam nag ki koy def ki ci politik dafay xalaat ni sunu borom li mu tëralkat su ko teggee ëllëg dara mën na ko cee fekk tilka xuduudullaahi wa man yuti llaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru waaye nag képp koo xam ne def na safaan ba it wa man yaasi llaha wa rasulahu wa yataadda xuduudaha yudxilhu naaran bi ci topp mooy seen digganteeg diine ñoom dañoo fas yéene faagaagal diine wàcce fi weddi suñ borom ak kéefër ba faw lislaam nag dafa fas yéene jox suñ borom li mu moom delloo ko li nga xam ni cosaan la woon lu bàyyi ko ci moom ci li nga xam ni mooy ay classe sociale ci ni ñuy àttee programme yooyu ak tëralin yooyu ñoom dañuy indi toujours li ci gën a bari ci ñoom dañuy indi ay classe sociale dañuy fexe ba société bi ñëpp duñu yem lislaam nag dafay taxaw ci nit ku gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci wàllu li nga xam ne ay constitution la constitution réew yooyu yëpp nga xam ni sukkandikoo nañ ci idéologie yooyu ñoom dañ koy tënk kem xalaati nit ñi ak kem seen passion l'islam nag amul loolu lislaam moom su dee am ñu muy privilégié ñi gën a néew doole ñoom lay gën a tudd sax di leen cité di leen jox waaye amul kenn keneen ku fa am wàccuwaay euh, fii ñu toog rek firnde ci ñun ñëpp kenn am fi wàccuwaay ku dul imam bi ci topp mooy euh, ansima yooyu yëpp dañuy faral def li nga xam ne moom mooy attalaaxu bi bi desatir mooy dañuy fowe ay constitution l'islam na constitution am kenn mënu koo fowe ndax inna nahnu na zikra wa inna lahu la xaafizun bu fekkente ni sa mandat dem na bay bëgg a jeex nga far dara ut ay constitutionnaliste yoo xam ne ñoom ñoo spécialisé ci wàll wi ñu ñëw di la interpréter ak yooyu yëpp l'islam loolu kenn mënu ko cee def ndax dañoo taj mi yëf yi bi ci topp mooy euh, ci wàllu politique bi aju ci wàllu am koom réew yi nga xamante ni ñoom ñoo tënku ci nizaam yi yépp dañoo uuf li nga xam ni mooy ay bunuk ribawiya ay banque yoo xam ni seen système système riba la ay monnaie transfert yoo xamante ni naxe moom la ñuy def ak di arnaquer nit ñi ak it ay kuréel yoo xam ni kuréelu koom la yoo xamante ni dañuy nax nit ñi loolu dinaa ci joxe exemple saa su nekk ci lu jëm ci wàllu facture ndox yi ak courant ak téléphone saa su nekk dangay ame amee ñun la facture bi kat 20 343 la mu leer la ni amul ci sunu sunu sunu xaalis amu ci waaye boo demee sa weccit faw mu des fa loolu saa su nekk ñoom aw xeetu naxin la woo xam ni système yooyu dañ koy def te lislaam moom bëggul kenn mu koy lekkal benn dërëm wa ahalla allahu al wa harrama ar mu waxaat nit wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin naka noonu système yi ci tëralin yi dañ cee mooñaale ger bis bu set da ngay dégg ñuy wax ni dañuy xeex ger waaye mënuñu ko ndax boo demee ca njiitu réew ma am na kees goo xam ne dañ ko tudde caisse noire wala ñu koy tuddee ay fonds politique loolu muy nekk ay xaalis bu baree baree baree baree bari boo xam ni kenn sañu koo contrôler te ci boo demee na mu ko amee boo demee primature noonu la ko njiitu primature amee nga xam ni mooy premier ministre ku ko seet si ci lay tibb jox la ku mu bëgg nga bëgg ci la lay jox nga xam ni loolu bu ñuy def euh, bu ñuy buñ ñu koy euh, saytu kenn sañ te saytu loola boo demee justice noonu la fa amee ñu tuddee ko fonds commun mooy loo xam ni kenn sañu ko contrôler boo demee feneen noonu lañ ko tuddee caisse d'avance ci mairie yi ba ci collectivité locale yi dañ koo am ba ci communes yi dañ ko am ba ci perception municipale yi sax boo demee dañ koo am am nañ ci loo xam ni donte matul euh, loola waaye dañuy def ñetti weer yu nekk wala ñaari yu ne weer yu nekk benn agent jël ko moom ko loolu nag muy ger boo xam ni ñoom dañ koy lawal damay wax ni toujours gone yi nga xamante ni dinaa leen faral di former ñuy jàng bay génn ñuy dem di jàngalewaat man leen def leen attention bu baax ndax état mi ngi leen di yoot pour am fu mu leen tënk ndax gis na ni kat ñëpp tënku nañ kenn ku mu bëgg créel problème créer la problème ba mu des jàngalekat yi ñoom rek ñoo libre libre gu toll ni weer de état fay leen bu leen jàngaleloo wala mu teg leen luñ mënul ñu taxaw grève ñoo libre noonu mu ni nañ indi kak benn système la boo xam ni xaalis dañuy jël léegi di ko bàyyi ci école yi nga xam ne xaalis bu bari lay doon bu école di tijji état dafay dugal xaalis bu bari xaalis boobu dañ lay wax ni la pour nangam la pour nangam la loo xam ni day des xaalis bu bari léeg-léeg école yi danañ dese un million wala ñu dese 2 million wala ñenn ñi dese 1 million 500 nga xam ne dañ koy séddoo seen biir wala kenn ci ñoom jël ko. wala ñu dem defe ko sorti mbaa ñu euh, fexe daal ba nuñ ci féexale seen xol loolu nag dafay jàll di bàyyi trace waaye yow doo ko bàyyi xel da ngay dem ba war a retraité ñu naan la kaay ñu audité la fi mu toll nii jublooguñ ci waaye da ngay dem ba vingt ans ci kanam ñu jublu ci loolu ay système la yoo xam ne dañ koo def ngir gargal ci wàllu koom euh, jàngalekat yi waaye nit ñi duñ ci bàyyi xel kon ger gi dañ koo tënkaale ci biir système bi nga xam ne mooy système occidentaux yi lislaam nag dafay daganal li nga xam ni bépp xeetu commerce la bépp xeetu aminu xaalis la waaye dafay araamal li nga xam ne moom mooy ger laana allahu rashi wal mustarshi yàlla rëbb na kay ger ak ka nga xam ne moom moo koy geral ak kay dox sa diggante ba sax am na beneen xadis boo xam ne dafay euh, euh, koy dal bi ci topp mooy li nga xam ne mooy sàcc sàcc système yooyu da koo ëmbaale ndax boo xoolee euh, bu dee réew yi nga xamante ni tey ay socialiste lañ ñoom sax ñoom ñoo tane ndax ku mel ni boo demee fu mel ni France njiitu réew ya fa wàcc yëpp daanaka amuñu xaalis amuñu xaalis boo xoolee Jacques Chirac mi ngi dëkkoon ci benn kër goo xam ni Euh, bàyyi rafet xariir yi mi moo ko moom moo ko abal ci Paris te loolu yëpp ñàkk xaalis moom moo leen ko yóbbee loolu nag wuute na ak li nga xamante ni moom moo am ci suñu réew yi suñu réew yi moom li fi am mooy da ngay toogandoog nit ci taatu garab ngeen di naanandoo ataaya nga koy mottali lépp waaye bu ngeen demee deux ans mu tàmbalee romb ci 4-4 ndax lan dafa dugg ci politique kon jël ay moomeel ak yooyu yëpp ci système yi da cee nekk bokk na ci it euh, système yi ni nga xamante ni noonu la ñuy yaatale li nga xam ni mooy alhuwa alhuwa bayna al agniya wal fuqara mooy décalage bi dox diggante ñu am ñi ak ñu ñàkk ñi système yi préparé wul ci lu ko xeex saa su nekk day gën di yaatu nga xam nit ki day ama ama am ba yor juróom-benn kat-kat nit ki ñàkk ñàkk ba lu mu jëlee ab saret du ko yor loolu système yi ñoom préparé wuñ ko di toujours dañuy wax ni dañ koy jéem a xeex waaye ci fayir gi nga xam ne fayir nañ ko euh, da ko wanewaat bu dee lislaam nag koom mi mu yor yëpp ci ñoom la ko jëmale waaye ci côté li nga xam ne ay liberté la côté li nga xam ne ay liberté la gis nañ ni ñoom indi nañ ay liberté waaye jural na leen ay problèmes yu baree bari loolu bokk na ci li nga xam ni mooy parti yu bari yi parti yi baree baree baree baree bari ba boo xoolee yenn dëkk yi tey lu mel ni Sénégal ñu ngi toll ci ñatt téeméeri parti ak lu tegal yeneen réew tamit noonu lay te loolu sous développement lay indi ni muy indee sous développement mooy tey jii bu ñu dee woote rek dañuy daal di imprimer lu baree baree bari waaye temps d'antenne nii da ci joué lu baree baree bari ci côté waxtu danañ ko jëlal ci côté xaalis ci côté lu baree bari waaye boo demee intérieur administrativement tamit dalay jëlal ay problème yu baree baree bari euh, ci côté aussi euh, li nga xam ne moom mooy ay sulukiyaat te mooy ay nekkin ak ay jikko da ngay gis ni système yooyu yëpp ñi mu yar dañoo gëm li nga xam ni mooy ay ŋàññante ak ay saagante nga xam ni tey ki ñuy tudde politicien moom mu taxaw ci kaw ab parlement wala mu taxaw ci présidence mbaa mu taxaw biir euh, primature mbaa mu taxaw ci mbooloo mi ñëpp di ko dégg muy saaga ak di ŋàññi nit loolu du dara ci moom ba ci jamono bi am na leneen lu gën a siiw mooy ay montente montente nit def dara nga ñëw monte ko dugal ko ci bërëb bu ñu bañ solal ko yére yoo xam ne yére yu ñaaw la euh, rafleel ko yooyu yëpp ci seen système yooyu lislaam nag moom dafay araamal ci nit ki kullu muslimin ala al muslimi xaraamun alayhi damuhu wa maaluhu wa irduhu nga xam ni doo sañ a tuuse nit ki euh, physiquement verbalement it doo ko sañ a tuuse ci lenn loo xam ne lu ko yàqal la beneen bi ci topp it mooy dañuy woote li nga xam ni mooy parité ci système yooyu parité juddu na ci parité ñoom système yooyu dafa mel ni naxaate la ndax boo xoolee ci civilisation yi nga xam ne ñoom ñoo meññ euh, idéologie yooyu yëpp civilisation yooyu yëpp benn bu ci nekk maltraité jigéen la doon liggéey biñ ci gën a naw muy grec ñoom dem nañ bay xool jigéen est-ce que mbindeef la wala du mbindeef wala est-ce que maanaam dafa bokk ci an nawul bachar yi wala bokku ci dem bay xool ndax am na xel wala amul xel France ba fa jigéen tàmbalee woote diir bu yàggul rek la nga xam ni ñëw nañ léegi liñ ci jublu mooy émanciper ko mooy fippuloo jigéen fippuloo jigéen naka noonu xale aussi droit de l'enfant dañ koy woote ci côté yooyu yëpp waaye liñ ci jublu moom émanciper ko nga xam ni sultatul abaway ni moom dañ koy màbbu bàyyi dootul yilif ndey dootul yilif beneen bi ci topp mooy euh, foog yi nga xam ni ñoom danañ ko fowe jikko yi di ko fowe jikko yi waaye di ko fowe mbaax mbaax yoo xam ne dañ koo doon noon tey nga xam ne respecté kilifa kilifa wax ba pare kenn dootu ci teg dara bu dee système yële nag moom daf lay wax ni la liberté d'expression dafa am waaye dañ lay wax ni la ndigal du dara liber ndigal nekkul ci kii te bu dee socialiste la boo demee réunion France da ngay déglu socialiste bi bi nga xam ni mooy sa jëwrin daal lay dicter ay politique bu dee libéral nga noonu bu dee communiste nga noonu lay demee aussi kon boo ko bañee fii rek da nga koy nangu feneen foo ci culture ba daganal ci li nga xam ni moom mooy alfannul habita moom mooy wàllu aar boo xam ne aar bu suufe la aar bu suufe la nga xam ni nit ki dañ koy daganal muy man di way di ci saaga lu mel ni arène bi juddu rab boo xamante ni nit ki day saaga di wax loolu yépp xukkuma yooyu daal di koy privilège dugal ko ci wàllu aar dugal ko ci wàllu liberté aussi nit ki man di rafle nga gis artiste boo xam ni ci aar bi muy liggéeyee lépp rafle la nga gis koo xam ni dessin yi muy def lépp wàllu rafle la ak woote jëme ci ay jikko yu yàqu lislaam nag loolu yëpp du ko mën a euh, du ko du ko mën a euh, uuf moom da koy euh, falang mu dem fële li jëm ci li nga xam ni moom mooy ñetti pouvoir yi ma waxoon te moom mooy pouvoir législatif bi ak pouvoir judiciaire bi ak pouvoir exécutif bi yooyu yëpp ñoom dañuy wax ni séparation de pouvoir mbokk yi séparation de pouvoir ay nax la boo demee ci yenn réew yi nga xamante ni ñoom ñooy réew yu démocratie yu mag yi xëy na ñoom mën nañ koo am xëy na mën nañ koo am chaque lan wax nañ ni am nañ ko waaye ci suñu réew yi séparation de pouvoir amu fi buñ ne kii mini euh, président la moom mooy jël pouvoir yëpp téye ko ci loxoom nga xamante ni fa ngay xamee ni séparation de pouvoir amul rek mooy ministère de la justice day am ministère de la justice nag fu mu amee procureur de la république dana am procureur général dana am te ñoo ñëpp dañuy jële seeni politique ca pale ba mu jaar ca primature ba wàcc ci justice bi nga xamante ni euh, indépendance justice du am yooyu yëpp waaye rawatina nag li ñuy wax séparation bi nga xam ni parlement bi parlement bi tey boo ñëwee suñu parlement yi ak parlement yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Afrique li gën a fës euh, ñun dañuy def erreur toujours mooy dañuy jox président majorité ci bu ñu demee élection présidentielle wëlbatiku ci fi nga xamante ni mooy élection bi nga xamante ni moom mooy législative tamit ñu joxaat ko euh, majorité nga xam ne day wéy euh, xukumu yëpp wala sultaat yëpp mu téye ko ci loxoom loolu l'islam moom wóotewul loolu l'islam wootewul séparation de pouvoirs ndax mbokk yi séparation de pouvoir ci xalaatu Montesquieu la bàyyi ko Montesquieu lim ci jublu woon moom ci xalaatu Albert Paye la koy sukkandikoo Albert Paye dafay wax ni benn tekkiwul dara benn tekkiwul dara ñaar boo ko boolee xëy na la mu jox la dara ñett moom faaw dalay jox dara loolu mooy yàlla wa ilahukum waahid du dëgg ñaar mën naa nekk ñett moom laxad kafara alladina xaalu inna allah huwa saalisu salaasa ci la ko sukkandikoo moom Albert Paye di ku mag ci franc-maçonnerie loolu nag Montesquieu ñoom ñëpp bi ñëwee ci la ñu def lépp ñett boo seetloo lépp dañ ko def ñett ba ci wàllu njàng mi euh, muqaddima ard xaatima euh, introduction euh, développement conclusion nga ñëw ci wàllu système LMD licence master doctorat dañ ko xaaj bu njëkk indaad ya amuloon ci mu njàng bi ñu demee ba kii xalaat yi ci lañ tënk pour bëgg lépp mu doon ñett pouvoir yi aussi noonu lañ ko defee nga xamante ni ñetti pouvoir yi lépp loo jël rek lu intéressant lu nekk dañ koo xaaj ñett pour défier suñu borom pour défier suñu borom kon nag système yooyu ñoom euh, ci loolu lañ taxawee l'islam moom wootewul séparation du pouvoir l'islam li mu woote mooy xalifa bi bu mënee doon juge bi da koy doon xalifa bi bu mënee doon bu ko ak jotam aku wéram mayee aku njàmbaaram mën a doon mu jiite larme bi da koy jiite loolu l'islam moom séparé wu ko buñ demee nag ba gis ni kii mënu ko ñu séparé ko ut ñeneen ñu ko taxawee ndax am na ci ay xalifa waaye l'islam moom wootewul loolu ndax li ci ëpp daawa yoo xam ne euh, yuraadu bihal baatil bi ci topp nag mooy euh, da ngay gis ni lu baree bari ci anzima euh, yooyu dañ cee mooñaale li nga xamante ni moom mooy sàccum élection alxisul intixaabi sàccum élection ba ci élection yu mujj yi ci Amérique gi ñu jàpp ni moom moo gën a ëpp démocratie gis nañ ni manipulation am na ci gis nañ ni ñi ngi ciy ruumandaat sàccum élection waxuma nag fi nga xam ni mooy Afrique nga xam ni Euh, assa de conscience da ci am jënd ay nit yab leen ci ay kaar di leen voteloo waaye voteloo ñoo xam ni faatu nañ bu yàgg tamit danga koy gis saa su nekk mu ciy am beneen bi ci topp tamit mooy ñoom ñëpp courant de pensée yi yëpp ak état yi nga gis ci àdduna bi yëpp ci liñ taxawee dañuy xeex li nga xamante ni moom mooy alxisaas mooy nit def nangam ñu jël nangam jooja fayee ko nit rey nit ñu rey ko loolu yëpp dem nañ ba mujj Donald Trump ci waxam ju mujj ji dafa wax ni dafay defar benn loi boo xam dafa koy yóbbu ci euh, magistrature pour ni jàngalekat yi am nañ droit léegi yor fetal buñ gisatee kuy tiire fetal rek ñoom ñu défendre seen bopp défendraale tamit seeni seeni seeni seeni ñi ñuy jàngal loolu jëloon l'islam moo gënoon gaaw parce que l'islam moom dañuy walakum fil qisaasi xayaat waaw buñ ko defoon rek mën a dem suñu yoon ci lu baree bari euh, kon lu bari la loo xam ni du fi xaj xëy na euh, waxtaan wi dana ubbeeku mu nekk waxtaan woo xam ni euh, danañ ci soxla yeneen ndollent ay borom xam-xam ñi ngi fi teew ñi ngi sant bu baax tey jéggulu di wàcce kàddu gi rek xëy na di ñaan mu gën a ubbeeku daal yàlla suñu borom yàlla nañu boole defal tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi lay sant bu baax a baax rafetal nga ko macha allah yaatal nga ko te it euh, leen rek moo ci xaw am jafe-jafe tënk bi tënk bi dafa ëpp na li nga indi woon moo xaw a yaatu waaye gis na it weeru koor gi la ak euh, am na ay kilifa yoo xam ne xaj na dinañ ci am ay kàddu ñu ci moo tax waaye macha allah yaatu na lool sax te it ay njariñ ji bari na ci lool. ndax ginnaaw bi ñu waxee ne ñeenti organisme yooyu ñeenti anzima yooyu ñu waxoon muy socialisme communisme ak libéralisme mu mel ne yooyu yëpp li ko war warloon mooy wuute ci xalaat wuute ci xalaat ak ñenn ñi am fu ñu teg yàlla ñenn ñi am fu ñu teg yàlla mel daanaka loolu bokk na ci lii seen sabab mu mel ne it dégg nañ ci lu bare bare it ne ka nit ci ay xalaat lañu ñu wute woon xalaat dem ba ci àgg doon ay wijhatu nazar wala ay opinion dem ba ci àgg pas-pas yi commencé wuute kenn kenn ku ne ak sa pas-pas fas yéene ànd ak sa ña nga àndal pas-pas ngeen créer benn groupe politique gis nañ misaal ci boobu lu mel ne chian yi ak lu mel ne xawaarij yi ak lu mel ne mu'tazila nga xam ne ci wàllu xalaat lañu wuute woon waaye wuute xalaat googu moom bi dama dem ba mujj juru wuute ci wàllu pas-pas ak wuute ci wàllu doxalin ci wàllu politique loolu it am na ci solo andi mu mel ne it andi nga fi yoo solo muy bokk bokk na ci kuréel yooyu nga xam ne ñooñ sow yi dañ ko sosoon fexe ba nosal nu lu ñu war a yore sunum réew nos googu bokk na ci li ñuy wax dawla ñu andi ko fi dawla boobu nga xam day léegi day am dawla boo xam ne malakiya la wala wazariya wazariya wala dawla boo xam ne aristocratie la muy am réew réew ni ñu koy nosee ba koy tuddee réew kon ñoo ñooñu ko tegal réew moom nag léeg-léeg ab buur da koy am da koy yilif ku ñuy wooyee buur di ko wooyee buur ci mbirum àdduna lu mel ne masalan lu mel ne Maroc ak yu mel ne Arabie Saoudite ak yeneen léeg-léegi mu doon euh, réew moo xam ne ministre ministres yi ñoo koy jiite ñooy dox ñooy doxal moom lañu ñuy wax régime parlementaire lu mel ne masalan Italie ak yeneen bu dee ci yi la dañ koy wax lu mel ne nguuri ceddo yi nguuru ceddo yi dañ mel ne it dañoo inspiré woon ca dañoo jëloon xalaat ca la ko ñooñ sowwu ña organisé woon muy lu am solo loo xam ne wax na ko fi ñi ngi noonu indi na fi baat boo xam ne it ba léegi day mel ni nit ñi dañ ca dëppoo woon muy baatu démocratie démocratia muy kalima yunaniya ñi ko nit ñi di waxee waaye day mel ne ni ko nasaraan ni ko arab ñi di wooyee ni ko nit yi arab yi di wooyee wala nit yi diine yi mooy dañ ne peuple bi mooy àtte boppam ci loo xam ne ñeen la ko te mu mel ne loo xam ne xaw naa jafe tuuti macha allah am na solo ni noonu it wax na ci ba tey it niñ organiser dund gi organiser li ñu wër ba organiser leen sax li ñu war a jëfalante suñu suñu morom ñi muy lu mel ne ci wàllu xaalis dem na sax ba mel ne nit mën te dund sans mu lekk riba ci wàllu banque yi lu xaw a jafe la nag léegi ak donte am na iqtisaad islaami yi jéem na koo teg waaye ba tey ñu ngi ci jànkonte ak jànkonte yu métti métti sax mu mel ne ko kon yëpp kon ñoom ñoo ñu not tegal nu ko ba daanaka mënuñ cee génn bi ci des it muy fexe ba imposé nañu impo fexe ba forcé ñu ne ñu jigéen dafa war am àq mbokk yi ñu bàyyi xel tuuti jigéen njëkk lislaam amutoon àq jigéen daawut dond buñ ko bu ma bu masaan a jur jigéen da koy suul muy dund waaye lislaam moo ñëw saxal loolu lépp folli li lépp na nasaxal ko saxal ko ne ko dafa war doon cër miraas dafa war am dafa am droit dund comme ni ko góor amee ak ñeneen ak ñeneen mu mel nekkoon jigéen dañ ko daan suul bu njëkk te alxuraan saxal na ko bu wa ida bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadimun yatawaara min alxawmi min suui ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turaab ala saa ma yaxkumuun kon muy loo xam ne am na solo dégg nañ ko ci baax ni ki noonu it warteef yi war soxna ak borom këram dem nañ ba léegi sax day mel ne jigéen ñi ñoo ëpp de ay droit ka góor ñi léegi te lépp ñoom ñoo ñu koy tegal xam naa it mat nañ ci bàyyi xel ni ki noonu it ni ñu organisé àdduna si dem na ba tegal nañ ñu mu mel ne jëmmi musique dafa dagan bañ ko mën ko jëfandikoo rawatina sax jamono bii nga xam ne ñoo xam ne ñooñ lislaam nañ ñooy taxawal di daganal lu mel noonu ba tuddee ko euh, surtout festival musique sacrée musique sacrée boo xam ne al musiqul ilaahi lañ koy jàpp wala leneen leneen tey loolu lépp ay ñoom ñoo koy teg rek ba mel ne dañoo dañoo toog suñu kaw lànk ban ñoo wàcc bañ ñoo wàcc nag dañu ñu toogee suñu kow dañoo toog suñu kaw ba noppi nag jekkati ko lool ba jekk muy loo xam ne it xam naa xalaat yi incha allah dinañ ci génn ñu am nañ sëñ Mortala Bousso ak sëñ suñu nijaay sëñ Abdou Samad ñu ngi koy ziar a baax Mbàkke di a baax it xam naa ko day njëkk a jox sëñ bu ko mooy gan gi <laughs> bu ko xam naa sama nijaay mooy gën a mën a yaatal sëñ mooy gan gi bu defee sama ñoo ngi sant baax sëñ Maodo it ndax macha allah euh, li ñu séentu woon ci moom mat na sëkk ñun sax ñooy ñooy jégalu ndax li mu andi woon dafa gën a yaatu lool waaye comme koor gi ak jëfinu mbusoo bi moo tax ñu xaw a tënk tuuti kon suñu motala bismillah tafadal mashkour ñoo ngi siyaara suñu mbokk yi fi nekk yépp tey xam naa nag mbir moo bokk bu ñu la ci joxee ak cër lu mu néew néew sañoo ko gantu waaye wax dëgg yàlla nag taxutoon ma bàyyi xel bu baax a baax waxtaan wi donte naa gis sax suñu doom yu baax yi di ko publier lu bari waaye bàyyi mu koon xel tey damaa ñëwoon rek ziare si sunu bàyyi sunu sëriñ bi sëriñ Cheikh ci biir yi xam laa déggee ne ñu bari yu su ma leen ko laajee mu ne ma ñu ngi ci jàkk ji di def waxtaan mu ne ko loolu kat jaadu na kon ma jaar fa teewlu diglu ko waaye sëñ Maodo li mu wax am na solo lool waaye day xam-xam bi ëpp solo ci xam-xam yi mooy xam-xamu waxtu xam-xam bi ñu dundul ñëpp ca li may li mu wax riche na loolu am na solo. jàpp naa ne nat wala waroon doon genre nat wala colloque mooy ngeen woolu mat juróom-benn nit wala juróom-ñaar ñu seq ko noonu la waroon demee ndax li mu wax am na solo lool point yi mu indi bari na ma ne sonn ko topp benn par benn ku bëggoon waxtu wu yaatu wax ci lu baree bare te loolu lépp lu am njëriñ lay doon tem la boo xam ne wax dëgg yàlla bu ma sañoon ñu bare bari danañ leen ci roy yéen itam tem bu riche la li ma ciy duggee rek mooy euh, du ma indi problème yi xam ne indi jur na ko mooy li sëñ Maodo indi mooy nan ñun jullit yi surtout nag ñi nga xam ne ñooy nit diine yi nga xam ne ay delluwaay lañ ay maraajan lañ ci lislaam nan lañ war a doxee ci loolu àdduna kat soppiku na bu baax ñu bàyyi xel ne dëgg la organisation bi ni muy doxee ak suñu système bii am na ci loo xam ne mënta ñàkk faw ci ñenn ñi waaye nag am na ci loo xam ne dara war a ci ñun ñun ñoo force ñoo bàyyi yan rek ngir mën koo def mooy am na loo xamante ni moom la Omar bin Abdul Aziz waxoon bada al islaamu xariban wa sayaudu xariban fa tuuba lil xuraba islaam ci tumuranke la tàmbalee ci lay mujj mu ngi ndokkeel nag ñi nga xam ne ànd nañu moom ci tumuranke googu waaye loolu mooy li ñu dund léegi si bu demee ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy doxal àdduna si nga tudd leen waa xar bu léegi si xeeti mbooleem lu ñu daan jëfandikoo nu mu mën a doon ñoom dugg nañ ci soppi ci niñ ko bëggee lu mu mën a doon it ñu jëfandikoo ci li ñuy wax kalimatu xaqin urida biha baatil mooy danañ la andil dara teg ko ci sa loxo waaye boo amee xel boo xoolee tuuti da xam ne lii du lu baax waaye mënees na ca mucc mucc ci ñëpp mëneesu ko 100 cent waaye ñun tam war nañoo góorgóorlu jéem a def dara ma joxe ci benn misaal mu gàtt rek ci wàllu banque yi ribaa ku ne xam na ne ni koy lislaam tarale ku ne xam na ne suñu mag yi daawuñ dund riba ku ne xam na ne daaru karim gi li fi bàyyi barke bi ba gën si sëñ Modou Fatou Khary lim ko fondement woon fekkoon waajuram fondement ko ci lu lew la looloo waral mu mën a yàgg nii mel nii yoon woo mi ngi foon da doon bay façon mbay yu bare bari yu wute bu asaka jotee mu génne ko comme ni ko ko yàlla waxe li ci des bu noppee dem lii mu yóbbu ko ci liggéey jumaa ji ñu daan liggéey booba jamono ñu Fallu lii mu dimbali ci ay nit loolu baaxoon na waaye nag ñun tam lu baree bare suñ ndono yi nga xam ne amoon nañ koo wax dëgg yàlla fonkatuñ ko bu baax dañ ko bàyyi dañ ne bërit rek dugg ci beneen programme bu bees dëgg la sax programme boobu tasaaroona ci àdduna ba mucc ci jafe na waaye nag buñ ci dugg ñu war a xam niñ ci duggee mooy sàmmonteeg suñ diine yi bu baax baax du ma ne ñàkkale riba kenn mënu ko waaye nag war nga koo mën a ko ba nga xamante ni la nga cey jëfandikoo dana néew lool ca su boobaa kon xëy na du ñàkk yenn ci borom xam-xam yi ñoo xam ne nee nañ daruura tubiixu riba donte sax loolu ñëpp dëppoon ci du ma ne nit ki na bàyyi banque yi xëy na ñenn ñi surtout am d'affaires yi boo ko waxee mënuñ ko def waaye nag wax dëgg yàlla am na nizaam programme yu am yoo xam ne du ma ne riba amu ci waaye boog néew na ci gis nga finance islamique bu bees bi xew suñ mbokk mi Mouhamadou Lamine Mbacké gis ngeen sonn na ci loolu bu yàgg ba léegi am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi ko ci roy dëgg la lu ñuy wax banque islamique am na fi doon sax banque islamique ñu bari dañ naan baat bi rek moo ci am solo waaye nag boo demee ba ci biir mook banque yëpp ñooyam waaye nag foo ko fekkit booy laaj ñi ci liggéey xamal ne am na lu ko wutaleeg tuuti banque yi ci des programme yi ci des waaye nag ñun tam duñ jàppale ñooñu wax dëgg yàlla duñ jàppale ñooñu nga xam ne ñu ngi ñëw ngir fas yéene ñoo xeexle li nga xam ne moom la ñu war muy suñu ji loolu nag musiba rek la ñuy jural kon nag nañ góorgóorluwaat te gën a delluwaat suñ ndono li gën a delluwaat suñ njàngale mag ñi bu baax a baax ci tënku ci ci xam ne lislaam it bàyyi na xel lépp nañ waxante dëgg rek lépp luñ ne la mënta ñàkk jamono ji koo laaj ba boo ci jaarut doo dund loolu ku la ko wax dalaa bëgg a nax rek lislaam bàyyi woon na xel lépp yonente bi sallallahu alayhi wa ay jamonoom xëy na yàgg na waaye ginnaawam ñaata xilaafa ñoo fi jaar xilaafal abbasiyin jaar na fi dawla yu bare bari am na fi imaaraat yi fi amoon ñooñu wax dëgg yàlla ñu ngi doon dund ñu ngi doon dund seen dund yi tegoon na ci yoon lool du ma ne daawuñ jëfalanteeg lu bare bari loo xam ne seen diine ñàkk la jural nañu musiba mu mag a mag a mag li nga xam ne ñun ñëpp ci lañu ràññi woon surtout këri diine yi ni di tasawu fii mooy yar ak respectante ak diglu ndigal te seetlu nañ ne manqué na bu baax a baax baax wàññiku na lu ko waral mooy loolu rek comme fas nañ yéene lu ñu gis ci télé bi lu ñu gis benn professeur toog wax ko wane ne lii liberté la kii sañ na ko wax sañ na ko wax xale bi ñëkk a jóg sa jàpp ne sañ na ko wax sañ na koo jëfandikoo loolu moo ñu jural lu bare bari tax na ba indi na jafe yu bare bari nit ki kilifaam dana jóg wax xale ba gën a ndaw ci njabootam mooy koo xam ne bu musaa dugg ci jotaay bu mu nekk day toog mooy njëkk a jóg weddi ko ca weddeen wu métti la koy weddi ndax du ko weddi rek wax ko Maodo wala sëñ Cheikh naa mi waaye da koy siiwal ci àdduna si ñëpp yëg ko wane ne kii mu wax du yoon du sama xel nekku li mu njëkk a sama xel ci li nangam wax loolu nag musiba la wax dëgg yàlla nañ delluwaat suñ ndono yi bu baax baax li ñu fi bàyyee woon mooy tënku ci diine bu baax a baax ànd ak yar tënku ci ndigal bu baax a baax ca benn loolu bu ñu ko defee dara duñu incha allah taala suñ diine dana mucc

jox ci kàddu moom it xam naa ñu sant bu baax euh, mboolem ko fi teew ak ñi nga xam ne ñooy tax ñu teewul ci jàkk ji mën di ko déglu bokk na ci ñooñee Daaru Karim TV ak suñu actu point com ak ICAP FM ak Touba TV ak Lamp FM ak Jant bi FM ak Benno FM muy ñoo xam ne daanaka bi koor gi tàmbalee ba léegi ñu ngi ànd ak ñun jotaay yi ba tax ku yàlla dogal mënoo teew Daaru Karim it mën ngaa ànd ak waa Daaru Karim ci li ñuy waxtaanee. di ñaan yàlla yàlla fay te defal leen it lépp lu kawe seen jot barkeb sëñ Tuubaa xam naa ko ñu jox suñu kilifa incha allah sëñ Abdou Samad moom it xam naa du ñàkk daje kàddu yu muy sànni incha allah aouzu billahi samiil man la nadira lahu wala nabiya baadahu wa ala aalihi wa asxaabihi almuxlasiina altayibiin wa man ihtada wastarshada rushdihim ila yowmi ddin mbokk yi gannaaw bu nu sàbbale sunu boroom julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ tuuba ñi ngi sant sëriñ Cheikhouna mi doon modéré jalsa bi di rafetlu lool oustaz angle bi nga xam ne nii mooy géopolitique ak économique bi nga traité thème bi ndax thème dafay yaatu léegi-léegi li fëgg ci sa xol rekk moo cay feeñ kon li feeñ ci ni nga abordé thème bi yaatal na ko lool lool macha allah mu mel ni dañ ci jël ay quelques notes rek yoo xam ne dafay gën a dëgëral li mu wax euh, bokk na ci bi ci njëkk dafa mel ne thème bi politique ngeen doon waxtaane politique nag dafay tem bu doy waar ndax lépp politique la nit ñëpp ay politique lañ waaye mu mel ni dañoo tëgg baat bi au ñu ne bu nit kii politik ñu ne c'est un danañ ko wax sax ci cas raar waaye buy politique dañ naan c'est un politicien politicien nag mu ngi mel ni bu ma leen ko doon misaal ci wolof nga ne kii de dafa bëgg doxal réew mi kooku mooy le politique waaye le politicien mooy ki nga xam ne daa bëgg a doxe réew mi ki nga xam ne dafa bëgg a dundal réew mi kooku mooy le politik le politicien mooy ki nga xam ne dafa bëgg a dunde réew mi kon ba ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp on est condamné politique lañ ñu bëgg ko ak ñu bañ ko kon li nga xam ne daal moo gën a baax mooy lom politique bu réussir mooy jur homme d'État te homme d'État la yaakaar ci am réew le politicien nag bu réussir dafay nekk li tubaab di wax benn farfolu kon li tubaab yi wax différence bi dafa rëy la différence et de taille entre politique et politicien Euh, lislaam nag fu taxaw ci loolu lépp bu leen ko ragal a wax lislaam yonent bi dane ba mu nekkee président ba di imaamu jàkka ja di premier général ca xare ba dafa waxoon ne al islaamu diinun wa dawlatun wa nidaamul xayaat kon fii ak nag yéen ñi nekk sëti gaañu baax ni ñu ngi leen di naxe benn baat mooy politique dafa taq ku leen ko waxati nee leen ko bu dee dafa taq ñun ñépp nañ ko bokk bàyyi bu dee dafa dagan ñun ñépp nañ ko bokk di ko def waaye politique dafa taq te lu ñuy dogal ci réew mi fa lañ koy dogale yow ñu ne la yow sëriñ bi nga dëkk Touba mu am lu ma 3 millions d'habitants ñu ne la bul wax ci politique te soo waxut ci politique ab seen yoon wi sax su ngeen ko bëggee defar waa judul julli fanaanoo mooy yàlla waaye daa politique bu am ndomb ak tànk moom la ñuy wax mooy mën a dogal ñu defar yoon wi bu fi junniy murit daje woon ak junniy sëriñ duñ defar yoon wi ndax ku politique moo ko mën a defar kon ki politik nag day naxe sëriñ bi ne ko politique dafa taq yow Mbàkke bul ko def ba nga ne ko waaw mu tàllali loxoom ne la ñaanal ma nag man ma am ci ndam moom lay def ndax yooyu dafa rëy tubaab bi moo ko fi njëkkoon def ne doomu sëriñ yi bu leen politique dafa araam nangam dem ci buur yi ne jox leen ma seeni doom ma jàngali leen am na école boo xam ne école doomu buur yi lañ ko tudde woon pourtant waxuñu woon école doomu sëriñ si ndax booba doomu buur yi lañ bëggoon ñu jàng comme ñoom gëmuñu diine ndomb ak tànk lañ gëm bu ëllëgee buñ jàngee ba am xam-xam lu ñu leen defloo ñu def ko ñoo ne lëjj ci gouvernement bi tey sëriñ see leen raw fuuf waaye boo nee benn doone ñaar benn sëriñ amul ndob ak tànk bu mën a tax nga tekki dara mu mel ne kon dafa mel ne sëriñ bi tuddaat na jigéen mi nga xam ne ci histoire lislaam siiw na lool ci lislaam ci alquran ñu ne am na jamono joo xam ne ni ku jur doom bu jigéen danga koy suul ba sax am na fu alxuraan di waxe ne ñoom de dañ koy suul ndax ragal ab xont ragal ñàkk lu ñu leen dundale ba yàlla tontu leen ne ku nekk ci kaw suuf rek yàlla moo yor ab dundam kon mu mel ne lu ñaaw la lu amoon ci histoire bi lislaam ñëwee mel ne ku koy jàngat jàngat bu rafet dafa war a dal gëm ne kon lislaam dafa ñëw ngir goreel jigéen ji nga xam dañ ko tënkoon ba egg ci bu juddoo ñu ne nañ ko rey yàlla loolu metti ko lool am na fu alxuraan di wax naan bis penc cër bu ne day taxaw doo ñëw sa la di wax yow jëmm ji naan maa defoon nangam déet làmmiñ wi mooy wax lam waxoon nopp yi wax lam déggoon bët bi wax lam gisoon tànk bi wax lam doxoon waaye yàlla nee na wa idal mawuudatu suilat bi ay danbin xutilat ki nga xam ne sax dafa judd woon ñu daal di koy rendi ne bu fi màggee du ma am lu ma ko dundalee yàlla ne ko yow bàkkaar boo defoon ba tax ñu di la rey kon ci gàttal dafa mel ne l'islam daa taxawoon foofu di plaideel jigéen ji nga xam ne daa ñëw libéré ko te histoire tënkoon ko bañ di ko rey kon mbokk yi euh, dafa mel ne dafa mel ne mbir mi mbirum interprétation la aw déggiin aw déggiin l'islam li tax mu complété li tax lislaam complété mooy diine yi fi jaaroon yépp te yàlla yabaloon leen l'islam tenir na compte ci ñoom la baax ca lañu daan def l'islam extraire ko maanaam génne ko di ko jëfe kon l'islam mooy diine ji gën a complet nga xam ne ni ci zahir doxinu àdduna suñ ci dee dox dafay mat sëkk waaye ci doxinu baatin muy diine itam buñ ciy dox daa war a mat sëkk donc bu ñu nekkee ay vrai jullit di dox ba pare constater ay manquement ci suñuy mbir nañ xam ne euh, yooyu am na benn bu ci manqué mu des dernier point bi nga xam ne noté woon naa ko pour waxaat ci ndax dama dégg ngeen tudd ko sëñ Moutala Bousso maa ngi koy nuyu bu baax euh, tudd na ko euh, xam nga li am solo oustaz ci sa conférence bi mooy dafa yemul rek ci politique bi nga xam ne ñu bari bu ñu wax ci politique dañuy agité dañuy yëngal fi mu toll yéen a ngi déggale xew Touba fan yi bari na famille yoo xam ne nii politique tas na ko boo nekkee kilifa goo xam ne nii yaa ngi yëngu ci ci politique da nga war a am matuk bis boo jëlee kàddu di wax ci diine fàtte ne mos nga xam luy politique waaye nag bu fekkente ne fu ñu la joxee kàddu sa appartenance sa féete ci politique feeñ rek déedéet matagoo ko war a taxaw ci politique ndax boo waxee rek da nga yàq penc mi te penc mi c'est le sacré kon angle bi nga ko traité dafa ma intéressé lool mooy liy suqali askan wi ci fànn yëpp muy le système mais bu ñu fàtte ne système boobu nag ay nit ñoo ko créé de toutes pièces tëgg ko tëggin woo xam ne nii dañu teg seeni garde-fou pour protéger seeni intérêts pour massacrer l'ennemi et pour le moment l'ennemi à abattre du kenn ku dut l'islam l'islam nag bu ñu ko waree abattre ay soldats yi mu yaakaar ñu war koo defendre du soldats yu jógee Paris wala yu jógee Nations Unies soldats yooyu mooy ñu tudd al muslimun donc point bi may mujj a rebondir bi ma doon junj léegi mooy. bi sëñ Abdul euh, sëñ Moutala di wax ci euh, banque islamique banque islamique moom banque la banque rek la euh, aw tur rek la donc banque islamique bu Sénégal bu France bu kii ñooyam ay banque classique lañ système bi moo war a soppeeku mais banque classique bu mën di doon banque système conventionnel bu banque yi la ñuy utiliser mais nag boo nee système bu finance islamique waaw kay loolu jërul sax turu banque bi compte PAMECAS moo ko njëkk a commencé Sénégal léegi banque yu bari ñu ngi koy essayer ci foofu lañ toll donc Sénégal dafa amagut finance islamique réew yi gën a dox ci àdduna bi mooy réew yi nga xam dañu teel a adopté finance islamique comme Malaisie Indonésie am na ay réew ci Afrique surtout ci euh, Maghreb le Grand Maghreb yu commencé di ko essayer même Europe am na manifestation bu daw yaram bu yéeme nit ñi dañu taxaw ci mbedd mi yor ay pancarte bind ci jot nañu utiliser finance islamique kenn du ci jullit nag ci ñoom en Italie Angleterre voilà sëñ Cheikh naa nee na Angleterre donc Angleterre mi nga xam ñoo dëgër ci gën a dëgër ci tubaab yi ñoom la seeni citoyen jóg taxaw di manifester wu ne nañ utiliser banque islamique tout de suite léegi nañ utiliser finance islamique léegi ndax jot na ndax gis nañ privilège bi muy jox ci misaal banque boo ñëwee lépp xaalis day jël risque yépp teg ko ci sa kaw banque bi par exemple boo lebee fukki million neuf millions cinq cent mille lañ lay jox cinq cent mille ñu fayee ji ko assurance boo xam ñoom duñu perte te yow boo leen di fay fukki millions yi fay fukki million ak ñett ak euh, téeméeri junni maanaam ñu amaat ñoom ci sa kaw 3 euh, millions 500 mille yoo xam banque bee koy bénéfice oo dagg la ci sa loolu nga leboon 500 mille dem fayee ji ko assurance pour ñoom duñ perte banque islamique nag li muy def mooy da ngay dugal une partie banque bi dug dugal une partie bu ngeen bokk di gagné ngeen séddoo bu ngeen bokkee di perte. ndax ni ñuy séddoo bénéfice noonu la ñu war a séddoo pertement bu ngeen bokkee di perte ngeen séddoo pertement bi yéen ñëpp ku ne nga xam ne risque day wàññeeku da wóor ne boo leboon ñaar fukki million wala deux cent millions alors bu doon ñàngit du ñàng ba sa deux cent millions yëpp yàqu ndax am na ku taxaw ne buy yàqu mu jël genn wàll gi waaye booy bénéfice mu jël genn wàll gi loolu moo gën a honnête loolu mooy lu tubaab yi di jéem a naa naan gagnant gagnant win win lañ koy wax. mooy système mu gagnant gagnant nga xam nit ki doo ñëw rek jaar ci kawam jàll waaye da naan ko bu ñu defee nangam nangam lay jur bu nangam jooju ñëwee maak yow ñu seddoo sa bénéfice bu naree njàng bu dee dañoo nar a perte pertement bi ñu séddoo ko maak yow mu gën a woyof kon euh, sëñ bi maa ngi gàttal kàddu yi foofu di leen jox rendez ci kanam ci conférence u sëriñ Abdou ñoom maanaam ahfaad yi di sant comité d'organisation bi saxal lii nga xam ne fu ne la jekk nag ci àdduna bi waaye nag wax dëgg yàlla ñëw ba ci daaru karimul akrami gii académie bu mag bi taxaw fi ñuy jël ay thèmes yoo xam ne ni dafa am dépassement bu doon Abdou Samad Mbacke wala ku mel ne moom moo ko def tànn thème bi ñu ne xëy na da koy politique mais yéen yéen a dem ba xam ne fii la àdduna toll muy loo xam dañ ko waxtaane ca jumaay Tuubaa ja di ko waxtaane ca jumaay Daaru Musi di ko waxtaane ca jumaay Màkka ja parce que fu ñu amee complexe ne duñ ko wax rek saay-saay jaar fa jaar ci suñu kaw te yow nag day bëgg a jot kon sëñ Jili ak sa rakk yi ak sa baay yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal sëñ bi teg liggéey bi ci sa nuyoo ci sa loxo di leen gën a encouragé di leen ñaanal bu baax wa